asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di leen wax sant ak ngërëm ñeel na leen ci teewlu bi ngeen di teewlu a 2STV première chaîne privée du Sénégal émission bi li ci àdduna commencé na di am tous les mercredis et jeudi 10h 11h ñuy lépp li nga xamante ne nii moo nekk ci àdduna bi rek euh, di ay jafe-jafe ñu waxtaanee ko toog fii ñu wut si solution di leen wax ne lu yàlla namm war na lu ma mottal daa jot te lu jot yomb ndax wax bu la ko yàlla nattoo bu la àdduna rek ñoo rek succès la waaye bu la dëgg rek ñoo leen nattu la ndax saa su ne war nga caa a def toj penc moo xam ne naa a yëngal réew ñu leen di ne jubluwuñ ci woon loolu heure bu ñu ci defee lu leen neex ñu xam ne seen mbégte mooy suñuy tëte yéen ba leen bëggee ñun dañuy reetaan ma koy fekk sama la lool maa la ma la gëjee gis samay bët day day jooy fu mu toll ndax dangaa nekk suma xol mais yaay namonaal mais yaay sa xeetu garab bu ëpp na de waaw man dama dama laa bëgg jur tey. waaw ma bëgg laa gunge ci jesneer yi. Mhm. aji Yacine Mbow sama xarit ba yaay Awa Cheikh. ndeysaan doomu Penda Ñang ja nga xam ba ma jàppee ba léegi bàyyi ñoo doon ànd bokkoon classe. ndeysaan petit ba grand mu dem Italie. siiw am fi ci diggante bi waaye dara changé wu ma ma dagga jasneer bi borom góllari kuti ni ma kaay ma ñawal la ko te doo fay dara. <laughs> ku baax du changé. <laughs> yaay foofu laay jaaree dem ci hôpital yi ñaanal ña fa tëdd yàlla na leen suñu borom defal jàmm man dellu. fa nu jóge woon te képp ku leen di seeti rek da nga mën a jënd banaana dix mille man nga dem fekk fa ordonnance bu six mille la nga yor rek ndax léeg-léeg ñi nekk ci hôpital yi dañuy am ay jafe-jafe ba réew ndax réew mi metti waaye nag foofu laay jaare dem ci prison yi ñaanal ñoo fa nekk muy camp pénal muy cent muy dixième bu kees. Ah, waaw waaw ah, chambre ak ak prison yëpp yàlla na leen yàlla delluwaat. leen seen kër mais nag bu nu fa delloo yàlla bu nu def la leen fa jëlee yaay maa ngi lay nuyu di la jox sa wàcc waaye di la wax na la mercredi jeudi li ci àdduna àdduna bi yëpp leen koy xaar mhm. dafay boo xam ne ci àdduna rek lay wax ci mhm. àdduna rek lay wax àdduna bi di ko xaar Abdou Aziz ba tey rek ma la doom laaj ban invité nga ma indil ak lan nga bëgg ñu waxtaane ko parce que dañuy changé doxalin nag invité xale parce que dañoo nekk comme que dañoo nekk ci anniversaire ba léegi di yàggaayu ba léegi di fêté vingt ans te vingt ans xamante ne nii sa yëfi maa ngi la invité xale boo xam ni ci côté actrice bi mu doon di yëngu ci wàllu milieu théâtre référence la ci idole la ci parce que buy jouer da ngay sentir yar ci moom buy jouer dangay ngay sentir dal ci moom mais ci kaw thème yi da ngay dégg loo xam ni dina la jariñ muy Ami Collé muy nit koo xam ni àdduna bi yëpp ku sañoon am ko sa plateau heure bi ci yar gi ci dal bi ci maanaam fonk boppam fonk sa bopp nag mënut a weesu mooy nga fonk sa peau mooy der bu ñuul bi fonk sa bopp taxul lépp looy joué nga assimilé ko doo dugg ci lenn loo xam ne dañ lay ŋàññ ki ma la invité réew mi li tax ñu respecté ko moo ko teg boppam muy Ami Collé. réew mi li tax ñu respecté ko moo ko teg boppam nga bëggoon ñu waxtaanee lan ba tey rek. yaay tey li ma bëgg ñu waxtaanee ko jamono ji dafa xaw a jaxasoo da ngay nekk ci millier art bi di doxal nit ñi di la xam. yàlla dogal ma ne goo gën am ñoo xam ne ma ne nan gën am na lu ñu yor mais ci seen biir dañuy yàqante dangay gis koo xam ne xamaloo ko dara ngeen ngeen ngeen ngeen bokk nekk ci benn moo xam ci label bi mu mën a doon mais bellaa mi ma fa dajal daal gis naa ko neexuma naa ko yàq rek. moo bari ci Sénégal moo tëj réew bokkuma ak Bella Label xool ko ci télé bi muy doxal yàlla dogal muy toj dëkk bi walla mi moom di toj dëkk bi ma ne il faut que du jaral na ma man ma bañ ko def mais dama ko dama koy yebal ay nit ñu koy bindal lu ñaaw ci internet bi. ak di ko waxal lu ñaaw tax te nit koo xam ne xamoo fu mu juddoo xamoo fa mu yaroo xamoo nu mu màggee xamoo lan la xamoo ci ban xeet la bokk xamoo ci ban meen la nàmpe sosal ko war naa mën a ñàkk yaay tey daal ma bëgg ñu waxtaan ci milieu art bi bu nee art nag mën nañ ñu mën nañ na communicateur man nañ na artiste mais yàqante bi nekk tamit ci théâtre bi nekkul fenn ci comédien yi. ah yaa ngi may tooñ nag na man mi toog ni comme comédien laa nga di comédien yi après maa ngi lay tontu kon ci milieu nga bëgg ñu waxtaanee ko. Ah, salaamaaleykum ami ami ami ami Faye ah. mhm. man je me suis dit que sax maam a nga tudd ami fay ñu ngi lay ziar. maa ngi bu baax Tata mhm. Bella di nuyu bu baax ki nga xamante ne moom mooy tonton El di nuyu mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan à travers 2STV di nuyu àdduna bi yëpp. Ah, waaw ah, nuyu nuyu nga àdduna bépp nuyu nga ñëpp moom yar gi dafa mel ne day feeñ ba ci lépp ma mm-hmm. parce que man ni ma koy gisee ci tele bi man man ah, yar boobu laa gisaat da ngay defee ne rôle boobu nekkul moo tax xëy na nit ñi di ko woowee maam jaara mm-hmm. soxna jaara sëñ Tuubaa am na mag mm-hmm. am na mag waaye boo gisee ni mu demee ak ka nga xam ne moom la doon nekkal ca Maam Mor Anta yar googu moo tax ñu jox cër boobu Sëriñ Tuubaa maanaam léeg-léeg nit wane loo xam ne yaay mhm. nekkul ci moom mais maam jaara bi mu duggee ci studio bi ba léegi dal gii lañ gisee ci moom bu ñu neexee ñu continuer woo ko maam jaara sax <laughs> ak yar geeg teggin gi as nga bëggoon tey ñu waxtaan ci milieu artistique bi waaw parce que ci milieu bi wax dëgg yàlla doy na waar foo gis ñu baax am nañu bon foo gis ñu bon am ñu baax nag man bëgguma ñu généraliser parce que ci milieu boobu man mii ci laa bokk yaay ñi bon ëppul milieu bi ci laa bokk kii ci na ma ne man jigéen gënuma ci Sénégal kii damaa télé laa toog di wax man leer na ma ne man jigéen gënu ma. waaye ñi bon ci milieu bi laa laa jummee. am na nag ci loo xamante ne nii mi ngi ci biir milieu bi ba tey ndax ñiy gàmm ak ñiy raas dem duñu benn. ndax ku nekk ak la la yëkkati. Ah, ami Collé mhm. yow Abdou dafa wax ci milieu bi yow ñëw ibaadu nga n'est-ce parce que dama lay gis ci infidèle da nga doon da nga doon voilé. waaw damay muuru da nga doon muuru. muy sellal da ngay ñun suñu théâtre bi ni mu mel. ak ni mu changé ak ni ñuy soluwee léegi ak ni ak comportement yi ci ñenn ñi am waxuma ñëpp de Sénégal wax fi dafa naqari euh, est-ce que doo am problème ci ci jouer yenn rôle yi parce que da yaa ngi muuru ibaadu mm-hmm. ibaadu bu théâtre man je pense que ci yow laa ko njëkk a gisee mm-hmm. ba ma juumlee waaw yombul yombul ci milieu bi de mm-hmm. parce que comme li nga wax rek bu dee tey jii dangay ngay muuru ñu bëri ñoo xamante ne duñ la jël ci seen yenn film lu tax parce que col bi da leen di déranger ah te aussi même bu loolu ñoom benn paar am nañ ci dëgg ndax kol mënul dem fépp am na rôle yoo xamante ne tey jii ki nga xamante ne dafa muuru mënu koo incarner te ñoom dañuy bañ a yàq seen histoire man je ma dis que képp kuy kolu rek am nga droit nekk ci li nga xamante ne moom mooy milieu parce que am na ñoo xamante ne par passion lañ koy def. Mhm. am na ñoo xamante ne dañ koo jàng dañ koo bëgg. Mhm. man tout au début jàngu ma ko woon mais au fur et à mesure may dem xam ne lii bëgg naa ko damay dem gëstu si. donc am na ay voiles yoo xamante ne ñu ngi fi te dangay ngay ay problème des fois parce que tey rôle jaara bi dafa nekk rôle boo xamante ne dafa sell. Mhm. mais boo génnee comme li ñuy wax fii am na yaa a personne et personnage. Mhm. personne bi mooy ki nga xamante ne mooy Ami fay mhm. personnage bi moom mooy maam jaara bi. léegi nag Sénégal différence boobu noonu duñ ko def. parce que tey jii nii bu dee dama solu nii macha allah def grand bu bu ma génnee sol jii dañ may naan yow naka too li ngay joué. nekkul ci yow. te loolu ah, dafa problème boobu dama am problème boobu noonu waa te lool dafa nekk benn problème boo xam ne dama koy dund tout le temps mhm. te gars yi duñu mën a comprendre ne benn rôle boo xamante ne dangay ngay jël sol ko rek la boo paree da nga koy tegaat nele da lay empêcher tamit yeneen production ñu jël la parce que dañuy naan rôle jaare bi nga amoon bugguñu koo changer te boo te pourtant warta demee noonu nag parce que parce que aussi artiste dañ ko war a natt ci ci mhm. côté bu ne quoi warta demee noonu mhm. euh, mais mais aussi suñu milieu bi bari ay problème bari ay ay rëq-rëq sax laa ko mën a waxee parce que aar dafa xaw a suñu milieu bi dafa xaw kii tuuti ñu xool ñun artistes yi nga xam ne ñun ñooy. théâtre tax ngay wax ay dafa xaw a kii dafa kii. <laughs> non xam nga lu tax am bu ci nekk nag ba tax. non nga ma wax la lool bëgg nga bëgg kii. da ma ñëw dama ne. Ah. dafa xaw a kii xam nga tax ma wax la lool. la lool. dafa am ñoo xamante ne bi ñuy jóg gis nga aar ñett la ki bëgg théâtre théâtre bëgg ko ki bëggul théâtre te théâtre bëgg ko mooy ki nga xamante ni dafa bëggul théâtre te neex ak ki nga xamante ni nii moom moom moom théâtre ko bëgg bu bëgg théâtre mais dañuy xool actuellement nit yi nit yi ñëw ñu bari nit yi ñëw ñu bari parce que nit du juger nit ci ginnaaw mais am na ci ñu bari ñoo xamante ni nii da nga leen di dégg ci naka suñu noonu loolu moo tilimal suñu der ñun ñun loolu moo ñu sonal loolu moo ñu taqal loolu moo tax en général nit du viser mukk lu baax ci ñun da ngay xool sax euh, góor bu lay bu lay seet bu lay kan nga dëkkal la lay njëkk a wax saa veut dire que ñun ñu ay nit yu baax loolu la ñu jàppee ñun ay nit yu ñàkk kilifa lañu ñun ay taxawaalukat lañu noonu la ñu jàppee te lu nit di def di ca torox di tañ koy def di ca di ca ca tedd des fois doo dajeeg genre góor yooyu ñu lay proposer ay naka su dul noonu wala dara parce que ci xale li tax loolu tax ñu invité ko parce xale yi bëgg a théâtre dafa bari te te danger ci gis ku xëy suba ba ngoon ci di xool fan la ñuy defee casting te ñoom defe naa na bu ñuy dem kastin ñoom it xale yooyu noonu faaw nga li nga wax noonu lu am solo la. Mhm. bu ñuy dem fu gën a sexe rek loolu la ñuy sol defe ne loolu la ñuy war a jëlee. dëgg la li mu wax dëgg la man moom personnellement mosuma am ay proposition yu indécente wax mhm. dëgg neex fa yàlla. Mhm. problème bi may am kay mooy ñi nga xamante ne dañuy jël di joxe sa numéro ñu lay harceler di la woo. loolu mais quant ñu may wax wax yu bon moom mosuma koo am xanaa des fois tamit nga xool à travers internet bi boo dugalee photo yenn commentaire mënul ñàkk ndax ñëpp mënuñu laa bëgg da ngay gis ñoo xamante ne dañ ciy wax ay propos yu indécent yoo xamante ne yéenuwul maanaa en fait. Mm-hmm. mais quant à yenn proposition yi déedéet sama yenn ñi nga xamante ne nag jot naa sëkk ak ñoom joué am na ñoo xamante ne dund dund nañ ci ay harcèlement ñoo xamante ne dañ leen di woo di leen harcelé di leen wax naka su dul noonu mais man moom personnellement mosuma kaa dund. léegi xalaatoo ne aussi ñun suñu milieu xaw na am yàqante tuuti comme ni ko Abdou Aziz di wax bu baax xaw na am yàqante tuuti mm-hmm. xaw nañu jël millier bi teg ko foo xamante ne nii dafa jéggi dayoo mm-hmm. te ñun waruñu def loolu parce que ku naan dama ni ñu ni ah mm-hmm. nit ñi bëgg la nit ñi di la déglu xale yi di la sopp di roy ci yow da ngaa war a def lu baax da ngaa war a yor comportement bu baax da ngaa war a wone exemple bu baax boo xamante ne nii ku la yor roy mbaa mu bëgg la sax dina xam ne lii ci diw laa ko royee da ngay gis koo xam ni Abdou Aziz di solo lay sol li Abdou Aziz def lay def kon donc Abdou Aziz war naa mën a def lu baax pour bañ a yàq doomu doomu jàmm dëgg la milieu bi bëri ay yàkkante trop te aussi Sénégal xam nga la ñu mënul comprendre comme par exemple tey bu ma fi joué woon benn rôle boo xamante ne euh, damay sol lu gàtt ak yooyu noonu ñoom pour ñoom loolu bu ma génnee dama ko war a continuer. parce que da gis ñoo xamante ne tey jii ànd naag sama benn copine boo xamante ne dafay jouer ñu dem ci restaurant mais daa am ko xamante ne da ko doon wax ay wax yu yu yu yu tegginewul parce que dafa jouer benn rôle boo xamante ne ci série bi dafa nekk di yeete mais gars yi dañuy foog ne en dehors ñu topp rôle bi ci restaurant yi foog ne moom noonu la mel dans la vraie vie alors que melul noonu tey jii nii bu nekkee da ngay jouer ñu bëri li ñu dul surtout jeunes yi nga xamante ne suñu moroom yi dañoo foog ne théâtre boo ci duggee rek wala cinéma bi boo ci duggee rek pour fës la. ñoom mais en général am na ñoo xam ne loolu lañ ci dugal. waaw am na ñoo xamante ne pour fës la nekkuñu ci parce que par passion dañuy gis ne tey jii benn jaare feeñ na tele faaw ma def la tout pour feeñ tere peu importe nu ma ko mun a. nu ma ko defee voilà te aussi ñu bëri aussi production yi jàppalewuñu parce que tey jii casting da koy teg ci yoon. du parce que kii feeñ na télé neex na ma rafet na rek dama kaa war a jël même bu nekkee image aussi da ciy jouer mhm. mais tey jii nga xam ne nit ki am na ay capacité pour nga mën koo jël mu jouer le rôle boo xamante ne bu génnee ñëpp dañuy naan macha allah. loolu mooy problème bi Sénégal. mais jaara delluwaatal ci restaurant bi xam nga nga ñëw. Mhm. am loo jouer yaay. Mhm. Ah, lu xaw a fekk boobu dafa am looy wane rek pour yeete. ngeen toog ci restaurant bi pour. jël cocktail kooku ñëw bi mu ñëwee automatiquement daf leen daf leen attaqué. non euh, dafa ñëw fekk ñu ñuy toog di waxtaan. mu ñëw salaamaaleykum ñu ne ko maaleykum salaam parce que duñ ko dàq. nit moom bu ñëwee mhm. toog mu commencé di ko wax ay naka sudul noonu. ko mën nga maa jox sa numéro ay yenn wax daal. si si mais teg na ko place am parce que ñàkkul fayda. Mhm. moom xam na ni dafa joué benn rôle bu paree tegee na ko à côté ndax dafa yor njaboot. mais am na ñoo xam ne rôle yi dañ leen di topp tamit de. dëgg la am na ñoo xamante ne tey jii koy ji dañ koy yóbbaale. parce que succès bi ñu ciy am da leen di da leen di sonal tellement que wala da leen di opportunité yi ñuy am mu ubbeeku moom mooy bari ba tel sorte que du ñu bëgg a jël personnage boobu noonu tegee ko à côté dañ koy bëgg a mbubboo. Ah, en général loolu nag baaxul parce que am na ci ñoo xam ne benn rôle yaay. da nga koy joué rôle la ñu joxaat la ko fe nga jël ko joxaat la ko fe nga jël ko loolu du dem ba châtier loolu pour nit ñime la parce que am na yoon yoo xam ne moom <laughs> tey jii fii nga sol lu gàtt ñu ne de suba nga def deux pièces dugg ci ndox mi sangu dañuy waxtaan gars yi di la gis. suba nga sol minute di am loo xam ne léeg-léeg nga teg c'est fekk lépp ci rôle nga ko teg te yow boo génnee soloo noonu. Mhm. ah gars yi nag bu yàggee yaay mbaadul la ñim waaw am na ñoo xam ne rôle aussi daf leen di topp nag am na ñoo xam ne rôle daf leen di topp man fi ma bëggoon ñu waxtaan si mooy que boo gisee xale yëpp ñoo bëgg théâtre xale boo ci dajal ci internet bi sax danaan la su la message da lay wax nan laay def ba théâtre mhm. te aar dafa bari ay ay ay ay ay rëq-rëq yu ci nekk dafa bari ay détails yoo xamante ni da cee nekk parce que am na ñoo xam ni ñoom liggéey moo leen tax a jóg. am na ci ñoo xam ne tamit liggéey liggéeyloo nit ki moo leen tax a jóg mais am na ci ñoo xam ne loolu tax leen a jóg. ñu ngi xool xale yi jongama yi nuñ ciy doxaane ñu ngi xool xale yi jongama yi nuñ ciy éree léegi bu fekkee yow xale bi ci boppam yow. ñu ci éri di di éri xale yi éri. xale yi lu leer laa wax. <laughs> di leen yóbbu ci hôtel yi. <laughs> waaw ba pare doog leen géeloo bu fekkee aar moo la tax a jóg muy sa bëgg-bëgg. say xale nga mën ko wala yàlla am lu mu la ci baaxee. ku ci mel ni man man jànguma théâtre fenn. Mm-hmm. man jànguma théâtre fenn man formation sax Thiès dañ ma ci jànqas ba ma ràpp. jànguma ko fenn am na loo xam ne yàlla moo la koy may nga ànd ak moom am na ñoo xam ne dañ koo dem jàng ji. mais am na ñoo xamante ne aussi dañ koo bëgg te yàlla rek tax ñoom nu ñu siwee baax na. Mm-hmm. mais yow mi nga xamante ni yaay góor yow mi nga xamante ni yaay producteur bi. xas ma benn producteur <laughs> yow mi nga xamante ne nii yow la xale bi di yaakaar di jub si ci yow bul ko bul ko chantage tete ko waaw tette ko xamal ni lii bëgg-bëggam la xamal ni lii bëgg-bëggam la mais am na ci ñoo xam ne dañ la ciy nax carrément dëgg la dañ la ciy nax carrément awale la yoon carrément ba pare ci nga leen di gëj dégg loolu tamit faaw xale yi su suma pare période vacances nag moom xale yi dañuy rakkaaj ku ci nekk théâtre théâtre boo théâtre moom pour ñoom bokkoo bokkoo ci bokk bokkoo ci dara àdduna du noonu Abdou Aziz. Hmm. àdduna du noonu àdduna du jékki-jékki rek xëy na xëy sotti. tepp tepp moo gën a yore da ngay teg tànk teg tànk teg tànk. boole ko ak dal parce que am na ci artistes yoo xamante ne nii nag ñoo tax ñu ñu joxoñ baaraam tuuma tamit. Hmm. parce que wax kenn du ko yërëm. am na ci ñoo xamante ne nii ñoo tax ñu ñu joxoñ baaraam tuuma parce que lu xew ñoo nga ca tamit. Hmm. ñàkk lu xew nga ñàkk caa ne tamit du ngóor de. ndimbalu yàlla la. ndimbalu ndimbalu yàlla donc parce que jigéen du të day raw parce que am na noo xam ne soo ko waxee day mel ni yow yaa gën ñëpp te gënoo ñëpp kii juum tamit yow tane woo ko ndimbalu yàlla moo la moo moo la moo la moo moo la moo la topp loolu lan nga ci xam parce que dafa am ñoo xam dañuy jug uniquement aar pour jaar jàll def ci lu leen neex dóor ci voyage ci tukki ci après ñu nekk ci leneen après seen der yàqu ñu ne théâtre kat yëpp ay ay bande lañ mhm. mais artiste yi sax euh, muy comédienne wala ngay actrice waroon nangu rôle yëpp nit du rôle bu ñu la jox rek wala nga gis casting rek nga dem nga ne damay bokk artiste da nga war a tànn yenn rôle yi nga xamante ne da nga koy da nga koy koy joué. non boo paree pour boo paree pour nekk artiste moom. Ah, non waratoo am limite limite. ci bu ñu naxante. xam nga tey boo paree pour nekk artiste maam jaara. pour nekk artiste. yaa ki nga ki nga dafa jóg pour nekk ci. Mhm. amul problème mais pour ki nga xamante ne dafa jóg tey jii nii am na ñoo xamante ne dañ ciy dugg pour dugg nii parce que lan tey maison de produit nii dinañ la. yow dañ ciy dugg pour dugg nii. non jamais parce que man aar sama métier la. Mm-hmm. man ma am 16 ans laa commencé def téléfilm. Mm-hmm. man tout au dama ci duggoon par passion. mais ba ma demee dama def samay formation yu bëri def naa plus de cinq formation yoo xamante ne dama jàng cinéma dama jàng écriture de scénario maanaam pour bind di di nettali ay histoire ak yooyu mm-hmm. noonu. donc pour ñi nga xamante ne jeunes yi parce que tey jii nii réseaux sociaux yi dafa tax xale yi gën a bëgg def li nga xamante ne moom mooy cinéma. ndax boo duggee TikTok di nga gis benn extrait série nga gis nit ki nu muy joué rek nga ne man damaa bëgg a joué influence boobu noonu tamit da ciy joué bu baax a baax ba tax na tey xale ku jug da ngay bëgg ne damaa bëgg dem joué ji damaa bëgg dem defi ji lii parce que lan nit yi liñ la ciy wax parce que réalité bi duñ ko xam ñu bëri foog nañ boo duggee ci cinéma bi dafa am xaalis certes ñu ngi ciy tedd bu baax sant yàlla mais taxawul voilà mais taxawul mu demee noonu di nga galère di nga galère bu baax a baax a baax bu dee tey jii nii yow da ngaa am fulla am fayda bien sûr ndax ñëpp yemuñu am na ñoo xamante ne dañ ciy dugg ngir lan affaire de ñàkk fayda am na ñoo xamante ne dañoo respecté seen bopp am valeur ñoom dañ ciy dañ ciy dugg di daanu di yéeg di daanu ba keroog yàlla di leen suturaal mais sax xam nga nit ñi xamee ko loolu mu ni noonu parce que des fois dañ lay dañ lay jox ay tegtal da yow diw yow da ngaa yàgg ci aar mhm. mais ku ñëw romb la ku man lool loolu loolu ma m'arrive man dañ ma koy wax mhm. da yàgg ci aar mais ku ñëw romb la ku ñëw romb la sa morom yi di dawal oto mais est-ce dawal oto xam nga nan la ko amee. merci est-ce que ki may romb di dem xam nga nan la ko nan la ko man des fois dama ci daan expliquer nit ba finalement damay damay sonn. nit ñëw na romb la man la wër sa gëm la Abdou Aziz parce que am na loo xam ne man ko léeg-léeg nit ñi dañoo bari te wute. am na ñoo xam ne ba àddunay tukki mën nañ la ko laaj de mais dañu dañu soxor maanaam ñu xam sa vie privée ñu xam ni ngay doxee xam nga li ma lay wax sa aqulaay taalaa xam nga ne li ngay ñàkk ak li ngay daw ci famille boo ko dajalee woon balaa vingt quatre heures nga jënd ko oto yow benn mais loolu ñorul la parce que mu tax ñorul la priorité am na ay loo xam ne war nga ko occuper léegi nit ñi duñu xool duñu xool lan li ci li ci biir de xamal naa ñuy xool li ci biti bëgg nañ la xamal biti xamal la biir mm-hmm. adduna dafa toll foo xam ne léeg-léeg dama naan nag xolo dañ naan la bellaa demal demal demal Abdou Aziz demal ma nga commencé def nii nga romb leen sax nekk ci liggéey bi di xalaat ñu ne dafa soof. Mm-hmm. dafa changé. léegi ah. dafa bari fuuy nangam naan ba pare ci yooyu noonu la ñuy jaare naan moo tax di diw raw na ko. Mm-hmm. am na oto te amul oto. Mm-hmm. moo tax diw raw na ko. am na kër te amul kër moo ne lan ne ca bopp ba moom attanu ko parce que xamal lu tax liñ ko sëf la sëf nañ ko ay texte mu war a solu ji xamoo ba xam am na ko mu war a sol dàll xamoo ba xam am na ko mais léegi dañ lay sëf loo xam ne léegi nit ñi dañ lay dem ba tànc ci miir bi muy miir wis ñu la ciy bomb. pour mu dagg léegi léegi léegi. fi jamono toll nii léegi dangay gis koo xam ne tamit day day day di bind di di wax ay casting yaay te dara du ci dëgg. Mm-hmm. léegi ku jut jub gàddu sa benn ordinateur dañ dañu xam nag ni ñuy habillé woo laal sa chemise laal sa ceinture. takk benn genre mel ni caméra yor sa appareil daan ne casting fekk boobu casting bi ci xale yi nga bëgg a casting léegi xale yi ñoo war a yeew xam ni. fu ku mel ni Even Pro wala beneen kii bi suñuy wootee dañ lay wax foto nangam nangam numéro ban taay nga toll mais ki jékki-jékki rek daan na la ñëwul fenn nga kii boo ca demee conséquences yooyu lu la ci dal yaa ko teg sa bopp te sama yaay li mu wax billaahi wallahi am na xale bu ma ci woon na ma Aziz fexeel ba dugal ma fenn damaa bëgg a théâtre. yàggu sax moom moom la mm-hmm. ñuy bëgg jaara ñuy xool ma naan jaara. waaw maam jaara <laughs> moom la ñuy bëgg may xool aussi nii am na ci yenn artistes yoo xam ni personnalité da leen a sonal am na ci yenn artistes yoo xam ne te da leen a sonal am na ci yenn artistes yoo xamante ne nii dañoo bari lu ñuy jomm dañoo bari jomm jomm loolu tamit boo ko boo jikko yooyu boo ko boo ko melee nekk ci aar di nga xaw a yàgg ci yoon mm-hmm. wala loolu arrivé gu la di nga xaw a yàgg ci yoon ah, wala wala wala wala wala wala wala nit ñi dinañu dem bàyyi la tax nit ñi ni xamul naan kii lu tax mënta dem mais yow au fond de yow xam nga yow lu tax demoo parce que sa jomm jomm sa jomm jomm ëpp na la doole. wala sa ngor wala sa personnalité. dëgg la parce que doomu aadama da ngay am lu bëri looy bañ. d'autant plus milieu bi nga xamante ne tu es appelé nga exposé wu ci ñëpp. jigéen surtout jigéen góor sax amul problème mais jigéen da ngay préserver sa dignité. man cinéma bu ma ciy dugg du lu ñàkk fayda wala ay tambaambaaloog yooyu noonu saa yu ma xëyee def sama tournage su ma paree maa ngi sama kër. Mhm. chaque instant bu ma liggéeyul maa ngi sama kër. te bëri na ñoo xamante ne tey jii dañuy dem ba personnalité bi comme li ñu wax sànq rek da leen di sonal parce que tey dugg nañ ci série bi commencé nañu am ay teraanga fàtte nañ lu bëri du fula du fayda di changer comportement di changer habillement fu nekk nga dem fa loolu day tax tey jii nii nit ki cër bi mu la waroon a jox dafay wàññeeku. di changer xarit. changer xarit ak yëpp nit ñi duñ la nam fu ñu tourné ci àdduna ñu ngi lay ñu ngi lay gis. Mhm. te artiste da ngay xaw a raar. Mhm. paa rare nii parce que da ngay dund dangay ngay ngay liggéey pour nit yi ñu mun laa gis nga wane li nga xamante ne sa capacité yi nekk ci yow. Mm-hmm. mais raar dans le sens où waruñu la gis fu nekk. Mm-hmm. fu ñu tourné ñu gis la wala xew bu am nga dem fa pour man loolu dafay rey sa sa sa sa sa dignité sa image da koy rey. Mm-hmm. te jigéen am na lu bari loo xamante ne da koy jomb doo dugg ci série parce que waaw damay dugg am xaalis pare naa ci déedéet da nga ciy dugg pour marquer sa empreinte pour ëllëg tey xale yi nga xamante ne dañuy ñëw. bu ñu seetaanee dinañ mën a xam ne tey sama yaay wala sama tante lii la joué woon ba tax nit yi naw ko mais bu nekkee da ngaa joué benn affaire tey am na ñu bëri ñoo xamante ne joué nañu role bu baax mais cinéma bi da leen di influencé de telle sorte que bu ñu génnee dañuy nekk ay nit yu bon. Uh-huh. loolu bëri na fi contraire bi aussi am na fi te man loolu. parents yi bu ñu ci veillé wul xale yi nga xamante ne dañ ci dugg influence boobu noonu dina gën a métti ci seen bopp. bon xool tamit ne ne théâtre kat yi des da ngay gis sa doom bëgg ko ba di wala sa wala sa wala sa dara bëgg théâtre kat li nga ci njëkk mooy ñii dañoo ñàkk kilifa mm-hmm. ñii ay taxawaalukat lañu mm-hmm. ñii gëmuñu dara ñii alal lañu gëm loolu tamit noonu nga koy gisee mais parce que ci milieu bi ñun ah, boo ci dee dund da ngay xaw a sonn tuuti nag mm-hmm. dafa fekk daa am ñenn ñu koy wane daa am ñoo xamante ne dañuy wane ñàkk kilifteef parce que tey jii di man bu ma xëyoon sama statut du matin au soir man xam naa sama bopp déjà mais bu ma xëyoon di statut midi ba 15 heures restaurant bu nekk ma dugg fa am na ñu ba ki nga xamante ne mu ngi toog ci ginnaaw image am dina ne kii yaruñu ko de ndax fu nekk day tambaambaalu uh-huh. tey jii nii parents yi parent yi dafa ñu ñoom bu ñuy seetaan télé dinañ xam personnage yi nga xamante ne nit ki mu ngi koy reflété uh-huh. parce que tey jii nii sa doom comme xale yi la ñuy wax sa doom bu jugee naan day dem defi ji dara topp ko bul ko bàyyi parce que bëgg-bëggam la nga dégager ci say responsabilité am na parents yoo xamante ne tey ñoom ñooy poussé seen doom yi pour tey jii bu ñu bu ñu leen gisee ci dara ñu leen conseil del solo nii dangaa mage lii ngay sol parce que yaa ngi feeñ télé ak yooyu noonu influence boobu noonu dafa am. côté bu ne loolu baax na ci moom. Mhm. génération bi léegi dañoo gaaw a màggate macha allah gis nañ lu ñu mel. Mhm. bu tey jii da ngaa nekk xale dugg ci am na yenn comportement yoo xamante ne boo ko yoree dafay yàq sa àdduna. Mhm. te pro du ma ne producteur sax ngeen jéggal ma ñi nga xamante ne tey jii dañuy def appel à casting comme li ko sama nijaay waxee sànq am na ñu bëri ñoo xamante ne dañuy làkkatu ci ginnaaw di def naka sudul noonu te am na ñoo xamante na ñoo xamante ne amuñu yenn mentalité yi naan kii day waxul day wax dëgg wala waxul dëgg dañuy ñëw parce que kii gëmloo na leen ne man damay def ay film kaay ma kaay ma kaay ma jéem laa wane jéem laa photo yooyu noonu chantage yi foofu lay commencé ba nga dem ba doo jarati dara waaw te wax kenn du ko yërëm Abdou nga dem ci ci benn film boo xam ne doo nekkoo woon ab di jouer ak ñoom. waaw nekkoo woon acteur principal bi. sax di jouer ak ñoom mais li ñuy njëkk a def ci seen bopp yi xale yooyu mooy bu ñu paree ñu éri quoi parce que pour ñoom dañoo dañoo boog foog ni ñëpp ñoo àndandoo ñàkk fayda. Mhm. ñëpp ñoo àndandoo mën a taxawaalu. ñëpp ñoo àndandoo fu leen neex ñu dugg fu leen neex ñu dem man pour man bu fekkee ni yow da ngaa da am benn da ngaa am benn eh, kii bi ci àdduna yàlla def la. ngay ngay naan dama nit ñi naan ah am na benn comportement boo war lu ma kenn nag. Mhm. parce que wax Sénégal dafa jafe ma kenn mais dañuy waxtaan rek ci suñu biir. parce que ñun xamante nañu. Mhm. yàgg nañ ci aar te xamante nañu am nañu yenn ay yenn comportement yoo xamante ni war nañ koo mën a yor. parce que nit ñi dañ déglu nit ñi dañuy roy ci ñun xale yi dañ ñuy bëgg xale yi dañ ñuy topp ba ni ñuy soloo di ñuy waxee ni ñuy defee ñu di ko defee mm. kon donc nit bu la yàlla cëralee lool parce que yàlla du n'importe qui lay may lool mm. du du ñëpp la ko yàlla di mayaa ah. nit bu la yàlla may loolu nga war a xool sa taxawaay nga xool sa nga xool sa toogin parce que man daf may arrivé ah góor da lay woo foo dëkk ma foo dëkk foo dëkk la sa yaay wala bu ma su ma ñëwee Sénégal fan la ñuy ànd man moom nga ko wax dootoo ko doole am problème. mën nga dëkkal sa yaay. waaw waaw si si mooy seen mooy seen réew fan nga dëkk. fan nga dëkk kii xam na li may wax. dëgg la foo dëkkal sa yaay pour ñoom ñun dañoo war a ñàkk kilifa. Mm-hmm. ñun dañoo war taxawaalu ñun dañoo war a restaurant bu nañu taxaw fa hôtel bu nañu taxaw fa auberge bu nañu taxaw fa pour ñoom ñun comportement boobu la ñu war a am te or que du loolu parce que am ñu ci nekk am fulla ak fayda bay bëgg dee di ci liggéey di yóbbu seen kër yi kenn du leen dégg ci dara lu ñàkk fayda mu bari yàqante tamit suñu biir mhm. mu bari yàqante ku ci jekku sa morom tey sa morom dee mhm. bari yàqante bari bokkandoo ñoo xam ne ñoo ñooñu ñoo ñooñu mën daal. Eh, yaay loolu jotul ngeen comme par exemple ngeen def ay meeting comme ay ay ay réunion yoo xam ne sensibiliser xale yi maanaam bind ci ay livre wax ci télé yi médiatiser ko parce que ñi ñi leen yi rax ñi leen yi rax mën a génn ci lool parce que coow loolu mu ngi bëgg a kii xale boo xam ne da ngay gis comme li nga wax nii manul da ngay xam ne kii manul dara mais rafetaayam moo tax ñu ko ci film bi bëgg koo sori mais da ngay jekki jékki rek gis ñu effacé ko. nga gis xale bi boo xamee léeg-léeg nga toog ay xale da ngay toog ay xale parce que comme ni nga doon moniteur nii la leen day ñëw na la man ne demoon naa mais bi ma demee ci diw di bëgg a def lii moom dafa ma chantage na ma lii lii boo ko defee ma man laa wane. isa jotul jotul jotul maanaam carrément ñu def ko ñu ñu animé ko ñu wane ni xale yi ñu maytu loolu isa jotul jotul jotul koo ça dépend na ci producteur yi. am na producteur yoo xamante mën nga liggéey ak ba sa liggéey bu ñu bu ñu kii rek am na producteur yoo xam ne kii xam na li may wax man liggéey naa ak Mbarodi liggéey naa ak Even Prod man xaw ma maas mi moom Mbarodi xaw ma ko mm-hmm. Ibou liggéey naa Even Prod lu yàgg yàgg yàgg jour bi ma ko njëkkee romb dama ne ko na nga def continuer dem ñoo ni ma kii moom moom Even mm-hmm. am na ci ñoo xam ne dañoo am personnalité am na ci ñoo xam ne dañoo am fulla mais am na ñu leen di mbubboo nag ci ginnaaw tamit am na ñu leen di mbubboo man maison de production bi naa leen pour bëgg a nax xale te gis nga Abdou Aziz xale su bëggee dara pour nga dindi ko ci wala nga dindi ko ci boppam yow yaay ko soxor soo ko dee wax toogal dal yow yaa bon soo ko dee wax yow yaa soxor soo ko dee wax yow yaa génn bëggoo moom mu génn sénégalais moom moo am esprit boobu ñun ñoo am esprit boobu nga ñëw ci aussi sëy sëy yi ñuy am problème xale dañoo ñàkk kilifa ndax man even pré mus naa liggéey ak moom xaalis dërëm manqué wu mi ngi noonu mhm. ci bi jaara léegi yaay bala ngaa dem ci sëy bi ñu dem pipte ñëw. nañ dem pipte ñëw waaw waaw. xam naa ne da dem ci sëy rek ndax sëy sëyu artistes yi. waaw moom laay wax xaalis bi xaalis bi artistes yi dégg naa dañuy taamu ay millions ak i oto. ñoom xam nga léegi dañuy yëgal seen. moo tax yéen jigéenu artistes yi da ngeen di def da ngeen war a jar loo leen jarul fi nii sama gaa concert gi nga xam ne 500000 bala ñu koo am day jafe waxuñu genre jaaro yi duñ leen song rek. <laughs> ak. bul wax loolu yoruñu yoruñu mais lépp parce am na ku may message léegi na ma jaara day dàq rek. <laughs> non fajar ku ñëw mu dàq la. non man dàqewu ma juste que sëy yàllaa koy tudd. waaw sëy yàlla suñu borom moom moo koy tudd bu ko bu ko heure bu mu ko waxee rek day am te sama mbokk yi nga xamante ne ñu jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi ci milieu bi am na ñoo xamante ne seen jëkkër dañ leen di comprendre mhm. pour ñu jouer mais am na ñoo xamante ne dañuy dem ba dañuy effacé wu parce que seen borom kër bëgguñu ñuy jouer te Sénégal fii nii cinéma bi dafa xaw a genre ñun ak suñu culture mënuñoo bàyyi suñu say naan dañuy dem di jouer wala yeneen il faut nga am benn jëkkër boo xamante ne tey jii am na compréhension pour mun laa gunge ci li nga xamante ne moom mooy sa passion wala sa liggéey pour nga mun kaa continuer mais fii day day jafe trop pour nga gis góor boo xam ne naan waa demal jouer ma téye xale yi wala demal jouer ma toppatoo ma am ko la toppatool kër gi dafay métti. mais même bu la bëggee gunge ay bokkam lay bañ. te aussi des fois nit bëgg a takk théâtre kat wala dara ñun dëgg la dañ la koy wax parce que tey jii ñoom dañoo jàpp ne nit ki li muy joué noonu la mel dans la vraie vie mais ñu bëri nag loolu la ñuy wane parce que li ñuy joué da leen di topp bu ko defee tey jii nit day ragal ñëw ci ñoom ne leen dama laa bëgg wala bëgg a def farata mhm. mais nekkul théâtre kat yëpp ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo mel ñoom dugg dina jafe de ni nga mel kas li nga yor ni waa sëy daal heure bu ko <laughs> yàlla tuddee non non loolu la Sénégal lay di bañ a li may wax ni des fois nga wax ci am na ci ñoo xam ne yàlla da koy tudd ngeen di dàq de. non gis nga sëy sëy mbir yàlla la. Mhm. jigéen bu sañoon booy am 18 ans. toog ci sa kër jëkkër wàcc sa ndey sa baay. di leen di leen teral teg ci jigéen bu sañoon. Mhm. jigéen boo fëgg xolam loolu moo ci nekk mais jaam ak pexem yàlla ak dogalam. Mhm. des nit ñi duñu nangu ndogalu yàlla heure boo ko waxee ñu xas la. heure boo ko waxee ñun dangaa bëgg a taxawaalu mais Abdou Aziz taaru jigéen sëy mais ñun suñu sañse yi ñuy sañse suñu yëre yi suñu sëbe yi ñu jënd ku tax lu lu góor ñi déglu ma rek baal ma ñëw rek ku tax lu lu góor ñi taaru jigéen sëy la mais sëy yàlla moo koy tudd gis nga Abdou Aziz boo boo ma seesee sama kër indi sa mbay ku njëkk ma dàq la yàlla moo tudd suñu diggante gis nga loolu dama koy wax tout le am ñoo xamante ni nii ñoom seen dégg-dégg laa ko mën a wax soriwul seen dégg-dégg soriwul wala tamit du ñu dégg ay wax lañ ko war a déggee yée yéen a bëggut a sëy ay taxawaalukat ngeen ay ay loolu dama koy dégg tout le temps ay taxawaalukat ngeen ay bànd ngeen wax ay wax ñu ñaaw comprendre nga mais sëy yàlla moo ko tudde aras gis nga jigéen joo gis xol ba sëya ca ne jur ay doomam am doomu jigéen day wees di hmm. am doomu jigéen hmm. day wees mais boo amul jëkkër Sénégal dafa mel ni ñàkk jëkkër crime la war a sëy da sëyo crime la parce que dañ lay lëjëla lëjëla lëjël koo waxa sax mu ne amoo jëkkër koo waxa mu ne amoo jëkkër mais jëkkër du moo la am ko dem toog sa néeg moo la gënal uuf sa mais yàlla la ko looy def doo muñ wala oh, am idée yu idée <laughs> am na ci ñoo xamante ne dañ naan comme dama dugg ci milieu théâtre bi nit ñi di ma xam bëgguma dugg ci jëkkër ni ma loolu dañu paax kon la ngi dégg am na ci ñoo xam ni comme dañ ci dugg di xaar ni bu jotee dina am mais am na ci xale yoo xam ni buggu du du du ba ci du théâtre bi rek am na ci ñoo xam ne dañ naan damay xaar tuuti mhm. mooy la bon xam nga mën nga xaar surtout ci millier bii nii tey man sama idéologie bokk bopp la daal ah. man du ko ñëw ma accepté la parce que am na ñoo xamante ne dañuy ñëwee bëtu ne kii jaara la am na yenn qualité yi bàyyil ma takk ko du ñu xool ginnaaw ginnaaw ginnaaw ginnaaw jaara bi maanaam ami fay bi ñoom duñ ko xam mhm. xamuñu ami fay nu mu mel ndax jikko jaara la yor wala de dañuy gis ne jaara moom moo ma neex rek damay dugg ci moom mhm. am na ñoo xamante ne dañuy dugg ci nit parce que lan kii dafa ma neex dafay feeñ donc góor ni muy taamoo jigéen noonu la tamit jigéen war a taamoo góor surtout boo nekkee ci milieu bii nii nga xamante ne dafa doy waar Sénégal nga xamante ne ku nekk day jug pour xam la wala ku nekk di incarné ne kii sekk na ak moom lii sekk na ak moom lële donc na jigéen góor ni muy tànnee yaayu doomam teg ko ci këram noonu la jigéen tamit di tàmmee surtout milieu bii nii parce que am na ñoo xamante n dañuy dugg ci actrice yi parce que lan pour tourner man maay jëkkëru diw man maay jëkkëru diw. Mhm. te loolu bu bëriwul ñoo xamante ne am nañ di ràññee. waaw di ràññee dafay dafay xaw a métti da nga ciy dugg après di ci génnaat te loolu yàlla nañ ci yàlla musal. Mm. am na ku jékki-jékki rek nag xaas dugg sa kër rek. te woowu la xam nga bella kii jékki-jékki rek na xaas ne yow lay set. déedéet man sama kër balaa nga fay dugg danga ma koy tàggu ba pare. Mm. man kenn du dugg sama kër te doo ma yëgal. su ko nit defee nag. non que nit doo ko dàq. Mm. danga nga koy dalal bu ñëwee wax ay intention yow nga wax ko li nga xamante ne moom moo nekk ci yow rek mm-hmm. jàmm nañoo yàlla bu tuddee seen diggante mm-hmm. mu dem yàlla suñu borom bu ko tuddul tamit ku nekk dem yoonam rek Abdou Aziz ay wax dëgg la la wax ndax yàlla bu ko tuddee Abdou Aziz ñu ñu ñu waxtu bi mi ñuy dàpp mm-hmm. ñu waxtaan tàggatoo mais dafa am loo xamante ni man dama koy dama ko bëgg a dénk Sénégalais mooy théâtre kat bi nit la comme ñëpp bi dafa am jikko bu baax bàyyi ko ci kër ndeyam ndeyam yar ko baayam ko théâtre kat bi dafa am personnalité dafa am lu muy bëgg am lu muy bañ am fullay boppam joo xamante ni ku ko ku ku ko ëmpale ba egsi ci moom di nga xam lan la am du théâtre yi ñëpp a bon nañ bàyyi néeg yi ñuy dëkkal ay taxawaalukat lañu ay ay caga lañu ay bandi lañu gëmuñu dara non non non parce que bul defar sa doom ba mu jekk nga làqot sa ginnaaw jël doomu jàmbur bi nga xamante ne nii mooy génn ci buy métier mu koy mu ciy liggéey di daw di yóbbul ndayam ca këram nga di ko ci xas wala nga ko ciy wax lu ñaaw parce que dañoo mën a xas nit ci loolu mm. dañoo mën a Sénégal dafa mën a xas nit ci loolu dafa mën a xas nit ci dimbali leen ñu bëggu leen say ay ay caga ay ay ay bandi ngeen loolu ngeen gëm dañ cee mën a xas te leer na ma ne Abdou Aziz kii toog di la xas ci loolu yaa ko gën kii toog di la xas ci loolu yaa ko gën mhm. yaa ko gën jikko parce que ki la gën jikko moo la gën mhm. mais du tee dañuy wut seen deux cent cinquante crédit mhm. deux cent cinquante la am nga xam boo ci envoyé juróomi message mu jeex mais noo def ñu làqal seen ginnaaw téléphone yi wax la lu ñaaw wala ñu xas na nañ bàyyi juger nit te xamuñu nit ki sénégalais dafa mën a lool dafa mën lool toog balaa seen génn nga ni kii ni ma ko xamee wayu la fee lay dem mi fee dem seen kër dafay def te xamoo ko sénégalais dafa aay ci lool bàyyi leen ñi géntale ngi leen di jugé te xamu te xamul leen théâtre kat yi di bàyyi leen di ñu dëkkal ci ay néeg yu ñaaw ay dañoo bon ay dañoo mën a taxawaalu déedéet bu sang sa doom ba mu set nga làq ko ci ginnaaw yàq doom jàmbur mhm. jaara waxtu bi mi ñuy dab euh, lan ngay tàggatoo alors euh, maa ngi lay jaajëfal bu baax di jaajëfal tonton Aziz di jaajëfal suñu mbokku euh, waa 2STV yi nga xamante ñoom ñoo ñuy seetaan. Mhm. di nuyu sama yaay nat bu baax na dalaa bëgg. Ah. voilà dalay seetaan. kon changé naa sa yaay samay xam waaw bëgg bu baax Ndeye Diouf. ah waaw Ndeye Diouf maa la raw man man maay sa buur ndax sant bi rek a xaw a naqari ndax man seen laa sant maay sa buur <laughs> sant bee naqari. waaw kontaan naa trop ci invitation bi. Mhm. seen ànd bi yàlla na yàgg ndax li ngeen di waxtaanee fii nii am na fi solo bu baax a baax. di nga ma may rek ma remercier ki nga xamante ne moom moo ma jox grand boobu. lim la jox di MSA Queens nga xamante ne madame Fall Amina di la jaajëfal di jaajëfal les tutos de Diarra ci li nga xamante ne mooy maquillage bi ak muso bi di leen gërëm bu baax a baax mi ngi noonu Abdou Aziz téléphone bi fi mu duggee dafa yéex loolu moo tax waxtu bi xoj nañ ba pare ah nañ ko jël rek insisté na ñorul tàggatoo salaamaaleykum maaleykum salaam soxna si na def maa ngi fi ça loo tudd fooy woote man la sant Faty Diarra xam bu baax Diarra wuyu suñ dëkkandoo la woon. Uh-huh. ça va sama crédit moom bëriwul mais ki nit ku baax la. ndeysaan. jaara yow bu baax nga. Mhm. jërëjëf dëkk nañ lu yàgg. Mhm. wax dëgg yàlla yaayam ku baax la papaam ku baax la ñii dañ leen yar ci diine lañ leen yar ak ci lislaam. nuru na ko. depuis xale lañ doon ànd billaay wallaay maa rakkam ñoo maase woon. ndeysaan. macha allah kii nit ku baax na dañoo jullite ay diine lañ séeréer lañ mais diine li moo nekk ci ñoom fees dellu ci ñoom barke Seydina Muhammad boo ko xoolee xam ko boo ko xoolee xam ko wallaahi mais dama koy ñaanal jàmm rek ndax yaayam da ko liggéey ci seen papaam ndeysaan ndeysaan wallaay dañoo ànd depuis xale ndeysaan saan loolu mais yàlla baax na incha allah maa koy ñaanal ci far ak wér gu yaram ci lu mu nekk yàlla gën koo continuer ndeysaan baax na am solo merci beaucoup yàlla may ko dëkk ju baax gën ci moom amin amin amin wax dëgg yàlla billaay walaay yaa ngi lu ne la defaral ñun ñii. waajur bu baax lu ko doom jënde jar na ko. billaay walaay bu la ko yàlla mayee ñu tàkkalikoo mooy dañoo am kër rek moo allah na ko yàlla fay rek. amiin amiin amiin rafet na bu baax dafa am solo alal yàlla te xaritam la koy dénk tonton Ndiaga Samb ñu ngi lay nuyu tamit yow tamit wax dëgg yàlla saa su ne yaa ngi teewlu di ci jàpp wax dëgg yàlla jaara eggaleel mhm. ah. waa di leen jaajëfal yéen ñëpp kontaan naa trop ci invitation bi. Mhm. di leen remercier bu baax a baax di remercier waa 2STV. di remercier na sama benn xarit bu tudd Badou voilà moom mu ngi may seetaan te nit ku baax la. ndeysaan mi ngi noonu Abdou Aziz waxtu bi. xot yaay xam nga. Uh-huh. Euh, day am ñuy jàpp ci combat bi. Nday Mari. séeri Boy Niang bala koddu maa ne mbaa yirim may sa xëri mi ci njobbu uh-huh. moo yëkkati jasineer bu rafet bii na ma Abdou Aziz Ndiaye bi solusé uh-huh. sol ko muy muy séeri Boy ñaa champion bi sa borom kër nag def lu doy waar jël yaayam aana ak sunu papa dégul yóbbu ko Makka yal na Boy Niang yàlla na la yàlla def roi des arènes ci darajey Seydina Mohamed di ñaanal ñëpp nga xam ne mooy jaay salon yu baax sama jigéen sama xarit borom Maroc yàlla na ko yàlla defal jàmm séri Alaaji yàlla na jàmm yàgg am na Aziz ñu joxe dig daje ba suba di waxtaan bi dem na waxtu bi xoj nañu wax dëgg yàlla may gërëm Aji Yaasin Mbaw ah mu pen na ñang yaay Awa Cheikh sama xarit boobu nga xam ne mu jàppee ba léegi bàyyiwu ay jës neeram bu ma bu ma doom lakk ba léegi jeex naa ba jeex naa tàkk Euh, sama soxla moom moo ko yëgul moo tax teewul mu faj ko aji yaasin ba yal na la yàlla jàmmal ba nga féex yal na la yàlla teral yal na la yàlla bàyyi ba awa cheikh moomu yor la ndax yaa ànd nañu ba ñuy xale ñu bokkoon classe ba nëgën te dara changé wul bokkar si borom gollaru couture moom moo ma ñawal sama càmmiñ caatum ami kene ma xale bi bari jom te nangoo liggéey ki nga xam deful dara noo su muy bokkar si numéro téléphone 77 euh, la nga xam ne liggéey rek a ko ñor daan doole rek a ko ñor uuf njabootam rek a ko ñor chéri Awa Touré bokkar maa ngi lay jaajëfal ñaw bi rafet na ñu joxe dig daje ba suba insha allah jërëjëf you